abonné leen ci YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim Adama ça va. ngi tane bu baax. maa ngi tane bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. lakk-lakk bi mu ngi tane. mu ngi tane waaw mu ngi tane waaw. yal na yàlla. macha allah ah. waaw métti woon na waaye alhamdulilah. alhamdulilah ndax gars yi ñu ngi dalal. waay ñu ngi toppatoo bu baax a baax a baax. alhamdulilah gis naa ne alhamdulilah xel daal bu baax a baax a baax. alhamdulilah ndax fi ñu jógee sax. Hmm. fee xool fii ak gën a neex. ñu ñëw na ñuy toppatoo ñu. Hmm. taal ni clim defal ñu lépp. alhamdulilah alhamdulilah daal. Ah. yéen daal seen taxawaay moom gis nañ ko. daal ngeen yàlla may góor fan gudd rek. amiin amiin gën a toppatoo gars yi. te tamit képp ku ma dégg dën mel ni man. Mhm. yu mel ni bu la dalati. Mhm. toogal liggéey reefe. Mhm. te xam ni sa réew ñàkkul dara. ñun nag man moom kumpa doog moom moo ma si dugal. waaye tamit jeex naa ak dinaa si am man dootuma si dugati. très bien xam naa sama bopp. ndax imagine quatre heures du matin nga nekk si diggante déeg duntu. bay dem bay waaj teer xam naa ne gaa yi euh, am bi xam naa ne daa dégg suñu yoxaloo yi su euh, guddi gi yëpp da doon ñëw nañ bay waaj a egsi ñëw nañ bay waaj a teer suñu bopp sax euh, gaal na napp yi ñëwoon xëy gisaa la ñëw gaal dañoo jël rek amuñu trois minutes marine bi egsi jëlaat ñëw te changé avant ñuy génn géej gi am na ñaari booy desete li jëlaat leen nga xam naa imagine daal lu leen euh, lu leen affaire mën a gis nañ leen si taxawaay baax a baax a baax a baax ñun moom pour l'instant ñoo xaw a réer si benn côté dugg si loo xam ne xamoo si dara. nga li nga wax rek kumpale rek et leen di gëmloo loolu bokkul li nga xamante ni moo am. na nga ma ngi bu baax di ñaan yàlla nga am tan bu baax. et de toute façon après am nay action yoo xamante ni mi ngi si yoon bi dinañ leen si associé bu baax ci waxtaan ak tamit euh, échanger bu baax ak euh, ñi nga xamante ni seen xel mën nañ ko dugal ci loolu te xamuñu ci lu ñuy dugg lan la d'accord merci yàlla may leen tan bu baax merci merci de courage merci ok Gorgui Sarr hmm, waaw man waaw ay soixante et kay. Mhm. Euh, euh, affaire bi. waaw Joal daal lañ tëmbee euh, bi ñuy tëmb nag booba suñ machine bi dafa amoon problème mu des benn machine ba machine boobu nag dañ dem ba si yoon gi daal ñu xam ne bii buñ ci demee après dañuy andil gàllankoor boo xamante ne nii duñ ko xam léegi nag ñu ne nañ teer si fii nii dëkk bii nu mu tudd sax. ndar ñu nañ teer si ndar pare nag noonu lañ ñëwee di wàcc si ba si xaw ma seen seen lii boobu si bël bi pare gaal gi nag am foofu dafa amoon ab benn paas bu fa newoon waaw ñu nekkee biñ dawee ba dal si paas bi nag ul bi ñëw sotti gaal gi ndox noonu lañ def ñi nga xam ne ñoo mun a feey ñoo ñu wax ne jël leen bidon ñi nga xam ne mënuñ feey ñun nag ñu jël bidon yi yàlla nag moo ñu teg loxo ba ñu ñii ñu mucc tax am na ñoo xamante ne nii ñu suñ biir lañ woon ñëpp xaaj yëpp dañ gaañu ñëpp dañ dee metti na torop nag waaye nag ñaaka xam moo ñu si dugal. jërëjëf Abo Ndiaye. Abo Ndiaye ah, eh, man. man na sama benn xarit moom moom wax rek ne ma am na projet buy dem. Hmm. léegi après man ma jox ko sama xaalis. Hmm. après projet bi accès nag mu woo ma départ bi nag métti woon na lool waaye yëfi góor la après affaire bi bi mu dawee ba ay 14 heures yooyu fi lañuy wax ne ñoom dañuy teeri après seen wax yi nag dafa bëri kenn xamul lu ñu wax après bi ñëwee ba ci bël bi nag si lañ dal ci benn paas bu ne foofu après ci la gaal gi dal wol bi ñëw dóor ko gaal gi am ndox léegi capitaine yi ñoom wax ku mën feey nga feey ku mënul feey nga jël bital après nag si lañ jël bi sotti ko ci géej bi essence bi nag moo def ni suñu yaram bi ak essence bi ak xorom bi moo ñu lakk après nag si biir géej gi lañ nekk foofu ba ay six heures yooyu bi ñuy teeri noonu ba waaje teer lañ des benn gaal ko nee na yooxu yi la dégg après mu ñëw si la ñu jël bi ñu jëlee rek la marine bi agsi après ñoom ñu jël ñoo ñu indi fii nag dalal nañ ñu bu baax nag ñu ngi ñuy faj ñu ngi ñuy toppatoo ñu ngi sant yàlla ba gaa gi ay à peu près soixante jëm soixante-dix yooyu daal non instant yi nag man moom ñii rek ñi mu saal bi nii rek laa xam ak benn paa bu ñu ànd ko ñu ngi ko dugal fee. na ñu des des ci biir ci biir. ah lépp mën na nekk de ndax moom man moom gisaguma kenn moom waaye ñun ñett ñi daal moom wér na ma ne moom génn nañ waaw. Mbaye si jàmm. na nga tudd. Abo Ndiaye. Abo Ndiaye. yokk tan bi alhamdulilah. Massa Massa. noo tudd. Mor Guèye. Mor. Guèye. fan nga dëkk. ay nag Potou. Hmm? Potou. Pout. Potou Potou. Pout. Thiès. waaw ah. est-ce que man nga nettali mbir mi nu waaw. dañoo jógoon quoi pour dem. Hmm? dañoo jógoon pour dem fële. waaw après waaw ñu dem ba si yoon bi benn benn machine gaal bi baax mu des benn moo la ñoom ñu jël yóbbu benn parce que beneen bi yàqu na après si lañ wàññeeku di ñibbisiwaat ñu ñëw jaareel ak gaal gi ci bël bi. da ngeen doon ñibbisi. waaw da ngeen dem dem ba benn pour machine bu wóorul quoi ñu wàññeeku waat. waaw ñu wàññeeku waat dañu ñibbisi waat parce que moo leen di risque quoi ndax benn moteur bi wóorul. si la ñëwee ni dañuy teer fii quoi nar. ñu ñëw si bël bi noonu gaal gi gaal gi tuuru foofu. biron nga jël biron après si laa jël benn biron. waaw am na ñis ñis waaw mais dañ ndoxu ndox mi ak kii bi ak essence bi moo tuuru foofu noonu léegi nag mu duggoon si biir ndox mi léegi buron bi may rondi fee noonu tamit dama sotti essence bu pare waat man ay 6 heures du matin la ñu far si géej bi. la gaal gi tuuru. gaal gi na ay ay 2 heures wala ay 3 heures kay après si laa jël bi ma fanaan si géej bi ay 6 heures matin benn gaal far ma maa maa yeneen 3 personnes benn gaal far si la jox marine bi mu soyee ñu andi ñu fi. c'est que man maa si gën a sonn ñu andi ma fi. non bari de. essence yaram bi lii kii bi la essence bi ak ndoxu géej bu jaxasoowee. Ah. yow mool nga. non non li si nekkoon yi mën a féey dem nañ seen yoon bàyyi ñu mais ñun ñi nga xamante ni mënuñu féey après si lañu solution mën a wut bi doon jàpp si. ñeneen ñi si des fi may wax yow nii man xaw ma si luñ nekk parce que man dëkk boobu léegi ni maa ngi si xaw ma si affaire daal. kenn kon léegi naa mu ngi Louga dafa décédé. kenn ñu des gisagul leen. fii ñu ngi leen di ngi topp trop macha te bu yaa topp xam ne démb rek ñu ngi may topp trop. waaw.